xam naa ni dina bari fii ñu am mbégte ci dégg ne biig waxtu wi min wi di jot ñenn ñi nga xam ne waxtu woowu dañ ma ci daan woo di ma ci souhaiter joyeux anniversaire ndax 21 janvier laa juddu waxtu woowu daf ma fekk ci kër kilifa moo waraloon mënu moon a jël appel su ma ko jëloon it dama leen di wax ne 21 janvier bi sama waajur wu góor da cee génn àdduna ma am soxna bu ci génn àdduna kon kaamil laa ciy def ni ma ko defee tey ci suba waaye ñaan googu ngeen bëggoon ak yéene bi nga xam ne moo taxoon ñu bëri doon ma woo ci waxtu woowu te jotuñu ma daa fekk waxtu woowu ma toogoon ak Serigne Khadim Lo Gaydel kon pour wax leen ni rek lépp gi ngi te lépp gi ngi rafet